leen ne nag depuis bi feebar bi amee ministère de la santé taxawu na indi ay experts ay ay ay kàngam yoo xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllu gëstu feebar yu deme nii ñu ñëw jàppale ñu ci gëstu yi ñuy gëstu ak saytu bi ñuy saytu pour taxawu ñi nga xam ne dañu am jàngoro ji te it ministère de la santé dafa jëloon décision comme feebar bi ci benn kër rek la nekk. mu ne kon ñamu dal te ñu gis ne defal nañ leen analyse gis ko ci ñoom nañ leen jël indi leen fan ñu taxawu leen te loolu li feebar bi nekk ci benn kër nga xam kër googu ñu fa jël ay mesures de quarantaine yu am solo moo tax ñu jël ñooñu yóbbu leen fan te loolu lim ñu indil mooy su fekkee ne malade yi mu dal jël nañ leen yóbbu fan dootuñu am contact ak personnel bi nga xam ne day amaat ak contact yeneen malaat wala day amaat ak contact ak seeni njaboot ci seeni kër kon loolu ak lu ci nit mën a wax lu baax la itam ndax su fekkee ne jël nañ leen yóbbu fañ leen yóbbu ñu ngi leen di taxawu anam yi leen di taxawoo dëppoo na ak euh, xam-xam yu mujj yi loolu dañ ci sant maintenant stratégie bu ñuy teg dañ koy dëppale ak contexte bi maanaam dëppale ko ak ay contexte mooy tey jii su fekkoon ne dafa demewoon neneen xëy na duñu jël yeneen décision yeneen décision la ñuy jël mais nii mu demee looloo tax ministère jël décision boobu may wax itam donc moom ñu bari nee nañ dafa dem poroxaan mais moom bi muy ñëw poroxaan weesu na poroxaan le 5 la woon moom le 7 la fi agsi ci guddi 6 au 7 ci la fi agsi am na ñuy wax tamit ne dafa génn këram dem siyaare ji wala dem kii ma leen di xamal ne kooku bi mu ñëwee génnul këram guddi la voyage bi mu ñëwee xam naa dafa waroon sonn donc mu tëdd këram génnul ba bi muy yëg li mu yëg tax mu dem seet kër docteur bi mu génnee këram pour dem kër docteur la donc loolu ñu koy leeral pour nit ñi bañ a ne ki feebar dafa wër dëkk beeg dafa dem ci ay bërëbu siyaar ak dafa dem ci feebar ma xamal leen ne génnul këram ba mu fa génnee hôpital la ñëw te bi mu ñëwee hôpital dañ ko fa téye donc loolu dama ko bëggoon leeral tam ci fan yi leeral na nañu am na ñu ñu ñoo wax ne am na ñuy jóge ci dëkku Europe yi particulièrement itali di ñëw di toog seeni kër te duñu dem ci kër docteur ñu nemmeeku seen yaram seetal leen ko ndax ñu ci bari ci ñoom suñuy agsi xëy na dañ dul am benn signe ba tax suñu ñëwee rek dañuy dem toog seen kër ñu doon ñaan ñi nga xam ne ñooy tukki te di ñëw fan yi ku ci ñëw rek nga fexe ñëw hôpital ñu seet la ba pare jël sa contact pour fexe di la suivre ba fukki fan ak ñeent yi weesu ndax itam ñun ñi nekk ci hôpitaux yi amuñu moyen pour xam kan moo ñëw ak kañ la ñëw ak fu mu nekk ak fu mu dëkk loolu yéen yéen ñu ci mën a jàppale ndax su fekkee ne askan wi communauté bi dugalul loxoom ci loolu risque bi mooy képp koo xam ne da ñëw indaale feebar bi nekk ci biir askan wi te bañ a dem kër docteur ñu seet sa yaram di nga wàll ñi nga dëkkal te sooy wàll amaana say njaboot ngay njëkk a wàll ba tax ñuy ñaan vraiment journaliste yi presse bi ñëpp jàpp ci ñu yee nit ñi ci loolu ndax feebar bi dafa toll foo xam ne dootul yëfu sante kese daanaka ñun ñoo ci bokk yem ñun dañu féetewoo paj mi rek waaye su fekkee eh, wàllu wàllante bi wàllante bi moom ñëpp ñëpp lay wax ñëpp ñoo ci bokk yem ba tax ñun ñëpp ñoo war a boole suñuy doole boole suñuy xam-xam boole suñuy moyen pour fexe àndandoo xeex feebar bi bañ a nekk di jiingante ak di xastante wala di waxante loo xam ne jaru ko su fekkee ni euh, maanaam service de santé yi ñu ngi sonn di taxawu feebar bi defe naa li ciy waru garaw ñi nga xam ne xëy na nekkuñu santé mooy xool fu ñu féete agent de santé yi ba mën leen jàppale ci xeex bi ndax tey jii ñun ñëpp dañu war a sumbandoo xeexandoo feebar bi mu jóge fi comme ni ma ko waxee feebar boo xam ne su nit sëqatee wala mu tichooli wala muy wax wala mu nuyu la su dee am na ko mën na la ko wàll kooku xam ngeen ne ñun ñëpp mën nañ ñu ko wàll kon ñun ñëpp nañ booloo fexe xeex feebar bi mooy xam ne presse bi am na rôle bu mag bu ci war a te rôle bi mooy di yeete te bañ a focaliser wu ci ay rumeur ak ay ay ay ay ay ay yoo xam ne ay critique mën nañ def critique critique yuy defar te loolu on l'attend de tout le monde ndax nul ne parfait su ñu demee bay critique na nekk des critiques constructives maanaam ay critiques yoo xam ne dina jëmale ñëpp kanam en tout cas ñun benn yéene lañu am mooy fexe ba feebar bi comme dugg na fi mu fexe ba du du law ci dëkk bi fexe tam ba du lor kenn ci dëkk bi te defe naa yéene boobu yéen ñëpp moom ngeen am. disposition yi waaw kon léegi disposition yi nga xam ne jël nañ ko d'abord. disposition yi mooy commencé nañ communication bi depuis lors ñu ngi communiqué defe naa am na ay membre presse en ligne yoo xam ne def nañ ay interview yu bëri yoo xam ne ñu ngi koy diffuser ci réseaux sociaux yi am na aussi ay émissions yu ñu def ci yenn rajo yi euh, am na aussi ay euh, CR CRD yu ñu def def nañ CDD aussi Mbàkke actuellement ñu ngi former acteurs communautaires yi pour engager leen ci ripost bi ci bataay bi ñuy mener contre le coronavirus nous allons nous avons élaboré un plan de communication plan bi nag dafa am ay aspects woo xam ne c'est extrêmement important mooy capaciter les acteurs ba ñu xam li ñuy wax en fonction de l'évolution de la maladie parce que ca njëlbeen ka lañ doon wax dootul dëppoo ak tey fii ñu toll ba tax à chaque fois dañuy yokkaat xam-xam acteurs yi ngir ñu mën a wax ak communauté bi euh, comme ni ma waxee ci CRD bi ak CLD bi wax nañ ak yeneen secteurs yi ngir secteur bu nekk ñu xamal la attente yi ñuy placé ci yow pour nga contribuer ci lutte bi suba ci 4 heures dina am un CRD spécial à la gouvernance de Diourbel pour un peu discuter de des, des en tout cas des des des points qui concernent la lutte contre le coronavirus fii ci Touba aussi ministère envoyé na fi ay équipe de chercheurs ak ay équipe d'experts pour ñu ñëw jàppale ñu ci xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex euh, coronavirus bi ils ont envoyé aussi d'importants moyens logistiques ay moyens logistiques ak ay euh, équipement ak ay thermoflash ak aussi ay gants ak masque de protection ba nga xam ne fii ñu toll ñu ngi en contact direct ak les autorités du ministère minute par minute pour leur faire le point de la situation et que ñoom itam ñu ngi jël ay ñu ngi def ay réunions avec les experts di suivre étroitement l'évolution de la situation fii à Touba donc Touba est actuellement une ville qui est surveillée du point de vue épidémiologique et qui est qui polarise l'attention de toutes les autorités du ministère leneen li mooy événement yi nga xam ne mu ngi ñëw nekk na loo xam ne ñu ngi intensifier sensibilisation pour fexe ba ñu mën a taxawu événement yooyu ba propagation du ci mën a juddoo euh, ñu ngi aussi programme ci àjjuma ji def le tour des mosquées pour fexe wax ak ñi nga xam ne ñooy ñëw di julli si àjjuma ngir aussi ñoom ñu yóbbaale ay ay message yoo xam ne suñ demee seen biir njaboot dina leen jëriñ fii ci euh, centre yi ak hôpitaux yi hôpitaux yi bu ci nekk définir na ay procédures pour gestion interne des cas suspects et des cas confirmés hôpitaux yi définir nañ ay espace de confinement de bërki démb j'ai été en Ndamatou pour discuter ak docteur sourant qui nous a vraiment rassuré parce que la prix des mesures yu am solo euh, des mesures pour détecter les cas, mais aussi des mesures de prévention de l'épidémie. Il a mis en place un circuit du patient avec un diagnostic, une prise de la température à l'entrée, et il a capacité tout son personnel pour la détection de ces cas. Ils ont en même temps prépositionné des kits de prélèvement et des EPU dans l'hôpital pour faire face éventuellement. Fawzeyni aussi ñoom itam noonu suñu centre yi ak post yi aussi noonu pour vous dire que actuellement on a pris toutes les dispositions mais feebar bi dafa tëdde noo xam ne loo jël jël disposition toujours virus bi wala kiy ñëw doo xam ban anam lay ñëwee. nit ki ban taxawaay la war a moom ci jëmmi boppam. Euh, loolu ci laa jëmoon euh, ni ñuy xeexe feebar bi ak di ko moytu mooy nañu fexe bay set li jiitu ci set bi mooy set ci suñuy loxo fexe di raxas loxo yi. fexe ba ku génn soo demee fa nga jëm su amee foo raxasoo nga raxasu sinon soo demee ba ñëw bala nga def dara nga raxasu fexe set ci aussi su fekkee yaa ngi sëqat na nga fexe sooy sëqat jël mouchoir teg ko sa gémmiñ dal di sëqat wala nga jël sa pli kudd nga sëqat ci te soo sëqatee ci mouchoir nga sànni ko ci biir poubelle boo xam ne loxo du fa dem di ko fa jëlee te na nekk ay mouchoir à jeter pour éviter de réutiliser les mouchoirs maanaam di utiliser ay mouchoir plusieurs fois te képp koo xam ne da ngay sëqat ci fan yii ñu toll war nga daw dem kër docteur ñu seetal la sa yaram xool lu waral sëqat gi képp koo xam ne tam yaramam dafa tàng mu yëg lu demee ne coono ci yaramam war na jóg lu gaaw gaaw dem seeti ji kër docteur ñu seet ko ñi nga xam ne tamit wax naa ko sànq ku dem tukki ba ñëw muy dëkk Europe yëpp rawatina Italie soo ñëwee ci dëkk bi li nga war a njëkk a def mooy dem kër docteur ñu seetal la sa yaram su ci dara amul ñu jël sa tur jël sa téléphone di la woo di la nemmeeku ba fukki fan ak ñeent yi weesu ñu soog la bàyyi il faut mu am ay mesures d'hygiène individuelles et collectives du point de vue collective nit ñi nañuy limiter seeni déplacement xew yi nañ ko wàññi xew yi nañ ko wàññi limiter déplacement yi jóg di dugg ak di génn nañ ko wàññi ku amul looy def marché bul dem marché ku amul looy def ci jël ay tata wala dem ci bërëb boo xam ne dafa bari nit su dee amul farata bu la fa yóbbu jarul nga fay dem épidémie su amee loo gën a néewal say déplacement gën a aar sa bopp ba pare itam yokk ci ay mesures d'hygiène mooy di raxas say loxo ak itam di góor góorlu ci set ak di bañ di sëqat ci kaw nit ñi su fekkee mënta ñàkk da ngay dem ci mbooloo nga wut masque nga wut masque boo xam ne diir bi ngay nekk ci mbooloo mi yaa ngi takk sa masque ba ba nga fay jóge